السلام عليكم ورحمة الله مكين لن يجي لن زيار ان بال حق دي لن بال ان يان برمي سبحانه وتعالى بولي نجيقل ان يوتي مسألة رقم مئة وثلاثون نجان حكم الصلوات الأقل من خمس وترتيبها مع الفائدة أن أليف ترتيب الصلاتين الحاضرتين المشتركتين في الوقت فمن صلى العصر في وقتها الاختياري أو الضروري وهو متذكر أن عليه الظهر أو طرأ عليه التذكر في أثناء صلاة العصر فإن العصر تبطل وكذلك العشاء مع المغرب فإن تذكر الظهر بعد السلام مع العصر أو تذكر المغرب بعد سلامه مع العشاء فإن العصر والعشاء لا يبطلان وإنما يندب إعادتهما بعد الظهر أو المغرب ما لم يخرج الوقت والله أعلى وأعلم بالصواب مسألة نميرو 130 يعني أتي أتي في جلي يوماتل جرومي جلي يكون يعني جلي تاكوسان كي وقتهم ولا كي وقت كانتم مدم باتي ديك جلي ني julleegol tisbar so booba julliga da yaqu naka noon yittimis ak gewe waayo budee dafa fatteli ko tisbar bi ginnaaw ba mu jullee takkusaan ba noppi wala timis bi ginnaaw gewe gewe gi su booba yaquul waaye dañoo sopp ñu baamu ñu baamu ko jaamulo mu faqale ibadat yàlla mooy kawe te xam lépp lu jub li tënk dars bi rek moo di ne eh, li ñuy jàng tey mooy tey julli yoo xam ni matuñ juróomi julli te war leen toppalante ki nga xam ni dafa julli tàkkusaan ci waxtoom wala ci waxtu ngantam jàngoon nañu lay waxtu eh, al yi ak waxtu daruri mooy waxtu bu valable bi ak waxtu bi nga xamante ni pour ñu am ngant la ginnaaw ga mu daal di fàttaliku ne moom kat julleegul tisbaar bi muy jullee takusaan xelam dem ci ne moom de julleegul tisbaar ci digg takusaan bi su boobaa julli googu dafay yàqu julli takusaan bi day yàqu bu dee doonoon julli gee tamit xelam dem ba ci digg julli gee ne moom julleegul tamit su boobaa julli gee googu it dafay yàqu bu fekkee dafa fàttaliku tisbaar bi nag ginnaaw bi mu jullee takusaan ba sëlmal wala mu fàttaliku timis gi ginnaaw ba mu gee ba sëlmal su boobaa takkusaan tisbaar bi yàquwul eh, kii bi tamit takkusaan gi kon afoon takkusaan gi yàquwul bu dee gee gi tamit gee googu yàquwul waaye dañoo sopp mu baamuwaat ñaar yooyu maanaam damaa julli damay julli takkusaan julli ba noppi sama xel dem ci ne man kat ndekete julleegu ma woon tisbaar su boobaa takkusaan booba yàquwul waaye damay dem julli ji tisbaar mais dañoo sopp ma baamu saan bi loolu mooy la mooy takku takkusaan bi bu waxtoom jeexee bu dee da nga koo jullee rek jeex bu boobaa da ngay dem fay tisbaar ba rek ba baamuwaat takkusaan bi bu fekkee ne timis la it noonu nga julli gee ba pare sa xel dem ja booba bu fekkee ne dafa fekk da ngaa julli ba pare rek waxtu timis bi jeex su boobaa da dem euh, waxtu gee bi jeex kon boobaa da ngay dem fay timis gi rek waaye doo julliwaat gee gi kon géegi ñu ngi ko soppee bu fekkee ne da nga julli ba noppi di fay timis ba ba pare ñu waat fekk géegi des booba bëgg nañu nga baamuwaat géegi bu dee takkusaan bi ak tisbaar tamit bu booba bëgg nañu nga baamuwaat takkusaan bi loolu mooy suñu dars dañu naan yàlla defal dégg ak topp incha allah muy leeru mën na ko tàpp ci numéro bi suuf ba ñu ko xamee nañ ko doon incha allah subhanaka allahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk aleykum wa